de Daba responsable du kër Siré Dia nekk ak jigéen ñi di liggéey boobu ba léegi liggéey bu mucc ayib di madame la maire nee naa ko egsi nga dem ba dajante ku mel le directeur général l'incontournable l'infatigable dama koy wax toujours téye le capitaine de la paire nee naa ko bu mbojo mbojo yi dee wax yow da ngay c'est un leader

adjointe au maire conseillère commune est bi ñu ngi lay dalal jàmm ñun waa Kër Siré Dia yaat dinañu tàllal suñu dënn tàllal suñu kanam nañ daan defanteeg ñépp nan ñuy defanteeg yow Kër Siré ja amul responsable ki fi dikk tey ak ku fi ñëw ëllëg ñoo yem même pied d'égalité ndax suñu leader loolu la ñu jàngal di la wax nag nag li nga ni amoo woon dara lu la metti fa nga ne woon doo am dara lu la metti Kër Siré Dia Siré da lay décanté te du la escanté

bu soobee yàlla def ko directeur campagne soobee yàlla day delloo loxoom fa woon madame la maire la directeur général ak waa këram surtout jigéen ñi man jigéen ñi lay faral ñun ñi jigéen ñi dañuy àndandoo dóorandoo xàccandoo benn góor du ñu mën ndax si Dia ku jàkkaarlook moom lu mu la sant danga koy def ndax Macky sàll ko ñor fal Macky Sall doo nga ko ñor tiitaroowul dara fal Macky Sall ñu ñor moo la ñor dès le premier tour le soir du 24 février ah bu wax ji bëree jëfu Siré Dia dina bëri bu soobee yàlla allahumma salli ala sayyidina Muhammad merci beaucoup. man la Adama Ba nekk ci ndaw ñi nga xamante ni dañuy jàppale le directeur général Pape Siré Dia comme niñ koy oowee le capitaine de l'APR fii ci Thiès tey li ñu fi dajale ci luñ ko mën a ci lu gaaw rek mooy dalal ab gan. comme niñ ko baaxoo senegal booy am gan dangay ngay waa kër ñëpp génn toog def yiw comme nii ñu ko defee teeru gan te bu ñuy wax teeru gan kenn mënu ci le directeur général Pape ja tey moom moo am gan gan gu mag koo xamante ni xàmmee nañ ko fii ci cees xàmmee nañ ko ci paysage politique bi xàmmee nañ ko ci parti bi nga xamante ne nii foofu la nekkoon muy le réew mi de Idrissa Seck Tay gan gogou doonatul ku présenter présenté soi, yi doonatul ku présenté sénégalais yi muy madame la maire Amicole Diouf nek adjoint au maire ci S maire bi Pape Diop jité mo ñew tay andak ak andak ay militant wam ak ay responsables yi ngir rejoindre le directeur général Pape Siré pour la réélection du président Macky Sall le 24 février 2019 Taï bés mbecté la tay bésu contenté la ndax buñuy wax ralliement yaakaar naa ni ku ne jàkk madame le maire xam ko xàmmee ko di nga xam ne c'est une personne de valeur c'est une responsable de taille tey moom la le directeur général décroché comme li ñu mën a wax rek mooy la saignée continue Que le directeur général comme ni mu ko baaxoo woon di def toujours mooy lépp lu mu gis muy loo xam ne mën na ko yokkal ci li mu mbébét muy falaat le président Macky Sall en 2019 dina ko jëli indi ko ci loolu ci la ay ndawam jug dugg ci terrain bi dem seeti madame le maire waxtaan ak moom di ko ommat di ko omat ba mu ñëw tey nangoo ne dafay ñëw ànd ak son frère le directeur général Pape Siré Dia ñu koy remercier ci loolu bu baax a baax a baax moom ak ñi mu àndal comme mi ngi guddi damay jox sama naataango Habib Niang moom aussi bokk na ci li nga xam ne joué na à 90 pour cent parce que moom ak madame la maire ñoo nekkoon na woon ci réew mi Habib ñëw mais boobu ba tey bàyyiwul ñu ngi ciy topp di ci wax ànd ci ak ñoom Mame Biram ànd ci ak ñoom ñas ànd ci ak ñëpp jeunesse Siré Dia yëpp ànd ci ak responsable yi ñoom Moudou Fall ñëpp ku ci ne dox nga ci wax nga ci ba Chérif ja le frère du directeur général nga xam ne li ñu koy tooñee moy gaawul dugu, wala mu sóobu ci li nga xamne day yëngu-yëngu politique kon bu demee ba jël tankam dox dem séti madam le maire moy wane né gan gi amna fuñ ko tek te soxla nañ ko ci lool damay jox abib Niang kàddu gi ngir mu dalal gan gi. moy chaque jour dañuy massifier bërepp bu ne la dem képp nak ko xamni ni né ko APR parti boo mënti nek dañ ko signé won ak le directeur général. wax ak moom benn slogan ne ko 2017 2019 ñoo ko res te loolu il faut ñu firndeel ko ko dañoo toogoon ak moom wax ak moom loolu ne ko xale yi nga am dañ lay resal législatif 2017 présidentielle 2019 groupe googu nag ñoo fi nekk peut-être ñaar ñi ñoo toog fii mais ñi koy def sax ñu ngi ci gannaaw soo xoolee li ci ëpp ñaar ñi fiy toog wala ñett ñi fiy toog ñi ciy def liñ ci def ñun duñ ci fekk complément bi parce que ñoom ñoo ñuy ñoo ñoo ñu pousse kon ñu leen di remercier groupe googu nga xam ni ñuy wax naan waa ñoo ko res ñoom la mais du Habib du Paul madame la maire nag wax ci dafay yomb parce que ñun ñoo ko doon suba ak ngoon guddi ak bëccëg dafa amoon ci tss centre yoo xam ne daf ñu doon të te moom mii amoon na ci part muy comme le centre bu ne cité Lamine bu ñu naan Morakan chaque élection dañ ko doon ñàkk kon suñ demee tey ba xam ñun point fair yi nga xam ne nii am nañ ko ci centre yi nga xam ni ak commune yi nga xam ne dañ fa nekk kon dañuy xool ñi nga xam ne nii tey ñoo ŋànk ci commune yooyu centre yooyu ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom xool nu ñu leen suqee indi leen ci parti bii di APR moo tax ñu si doon topp madame la maire kii maire yi Thiès la nekk nekk conseillère ma xam ko xam li mu daan liggéey Modakan bir na ma ni kon suñ ko amee ci parti bii di APR moom mu choisir le DG Siré Dia aussi ñu ñëw tey DG yombalal ñu ko ba pare ñu dem leen loo leen xalaat maa ngi seen gannaaw bu leen tiit kon ñun mbëgte la ñu toog indi ko fii ci suñu permanence jàkkaarloog journaliste yi wax leen ne leen bàyyi na parti bi mu jógee bi mu nekkoon muy le parti réew mi ànd ak ñun man nag li ma ciy wax dootul yomb parce que lu ma weesu weesu naa ko mais ñun du ñu jël ay desit wala ay res di ko yóbbu di def point de presse dañuy dem napp jën yu mag ñu indi ko teg ñun du ñu tontu ay xale du ñu wax ay xale ay mag yi jëmm la ñuy dem xool ñi parti bi gën a yaakaar ñu yanu leen teg fii kooku message la bu may lancé ñi nga xam ne nii tey le restant ñi nga xam ne dañ leen fii jële sànni leen ci mbedd mi ñu for leen di leen defloo point de presse ñoom moom kàddu googu. maa ngi nuyu bépp responsable bu ma fekk fii ci biir salle bi maa ngi nuyu tamit euh, femme responsable yi nga xamante ni si ñoom laa àndal ñëw man maa ngi tudd Aminata Diouf nekk conseillère municipale à la commune de Thiès Est. tay nak dama am telol, ma sha allah parce que dama ñew fi nga xamante si man fi la wara ñew parce que Pa Dia DG li tax ma ñew top si ko man xamna ko te xamna fi ñu jëm moo tax ma ñew abib nya Paul sherif maa ngi di sant di parce que mënoon ngeen ma bañ a topp si mais da ngeen a ñëw seet si ma wax ma wax yoo xamante ne si ku mu doon yowit nga dem toppi leen parce que lu jëmale réew mi kanam rek ngeen ngeen di def te loolu la Siré Dia di def boobu ba léegi ci la nekk macha allah li mu def ma teg ci sama bët moo tax tey ma am courage yu jóge réew mi ñëw ànd ak Pape Siré Dia ma nekkoon awma dara luma fa metti awma dara luma metti réew mi macha dama fa amone ay fonction yu bax tok ci sama bureau di liggéey mais nag tey damaa gis tey luma eppal lolu dama gis luma eppal lolu motax je suis engagé pour andak le président Macky Sall fal inshallah incha rabbi 2019 le 24 février 2019 dès les premiers tours et je m'engage je m'engage aussi avec le DG Sirédia parce que moom moo tax ma engagé wu pour me affronter ñi nga xamante si ñoom ñoo nek, ci nga xamante si ñoom ñoo nek, ci quartier Cité Lamine au niveau école Cité Lamine tek fa seen tank. Tay andak ak nak nag fas yéene fee jële loolu lépp loo si école Cité Lamine daan na fa am rek ba APR mënu faa jël dara incha allahu rabbi damay ñaan yàlla ci kàttanam le 24 février inshallah allahu rabbi 18 heures waxuma 19 heures de 18 heures ñu joxe les résultats incha allah.